élèves ci seen wàllu examen. ci seen wàllu examen xibaar yi kon ca diwaanu Kolda la ñu jëm nag fu waa CUSEMS nag ñooy rek fu dem grève rek ñu sakk kon ñu fay leen seen rek payoor ak kopparu correction BFEM ak BAC kon ñoomal nag ab ndaje ngir rek waxtaanee yeesalum calendrier scolaire bi Bokar Kandé. ci teewaayu autorité administrative yi élus locaux inspecteur d'enseignement représentant syndicat yi ak association parents d'élèves yi la ñu xamle dogal bi njëwriñ bi ñu dënk wàllu njàngale mi ci Sénégal jël ci réaménagement calendrier scolaire bi ngir rekk njàng mi wéy ba fin juillet waaye ñu gis ne dogal boobu dafa am li ko nar a gàllankoor bu nekkul tiitange bi ñenn ñi am ci nekkinu école yi ak nawet bi mooy position bi nga xam ne nag syndicat yi di CUSEMS ak saayam sa jël nañu ko enseignants yooyu di jàngale ci collège yi ak lycée yi fas yéene nañu banque seeni loxo suñu leen fayul seen i ci li jëm ci wàllu correction baccalauréat ak BFM ci session yu jàll ñuy attire attention seen i ministre de tutelle ñu koy wax mu bàyyi xel ci retard de salaire yi di loo xam ne tamit mun naa tax rek ñuy banque seen i loxo suñu ko saafarawul ndaxte ci seeni gis-gis loolu jaaduwul ñu gis ne yabel sa ndaxte nguur bi fi nekkoon si woon na accord ak institution bancaire yi ngir rek ñuy gaaw a fay salaire yi ci loolu nag inspecteur d'académie bu Kolda wax na ne dina dajale ci ni mu gën a gaawee payeur régional bi contrôleur des finance ak syndicat jàngalekat yi ngir rek ñu situer responsabilité yi. dinañu convoqué benn réunion ñëpp toog. gouverneur payeur CRF IA ak banque yi ñu xool fan la retard bii di am lan mooy jàngoro bi ak surtout nan lañ ko mën a faje Mamadou Mbare ànn wax na ne dina fexe rek ba juróomi ñetti professeur yu ñu amal ndàmpaay yi ñu fay leen ko ci ni mu gën a gaawee muy rassuré ne tamit fii ci Kolda du ñàkk ay salle de kuréel bi omb parents d'élèves yi ñoom fas yéene nañu waxtaan ak élèves yi ak seeni waajur ngir rek ñu xam njëriñ bi ñu mën a jëlee ci dogal bi ministre de l'éducation bi jël. jaajëf Bokar Kande étudiant nag yu faculté sciences juridiques ak politique nag ñu bari kon ñu am rek lu ñu wax carte étudiant ginnaaw rek kon ba ñu rek inscrire BRAC daal di noppi nag ñu joxoñ ci baaraamu tuuma seen doyen faculté Modou Diop àddu ci micro assan Diop ak Xali Ndiaye. jotoon nañ inscrire ba pare def inscrire nañ le 19 mars bi le 19 avril bi passé par les biais des formulaires formulaires yi nga xamante ni amicale ñoom ñoo ko doon joxe dañ jàpp ne comme que gouvernement euh, administration bi mënut a orienté ñëpp. amicale bi nga xamante ni ñoom dafa lié ak administration bi dañu yoroon ay formulaire yoo xam ne dañu ko doon jox élèves étudiants yi pour ñu mën a bindu étudiants yooyu nag mooy ñun ñi dañu bind le 19 avril bi gars yi bañ administration bañ duñu jox suñu carte d' étudiant yi te dèjà am na fi ñoo xamante ni ñoom nekk nañ ci groupe TD yi commencé nañ def ay cours ba am ñu war a présenter ay exposé ñooñu noonu loolu nag moom ñu métti moo tax ñu dajee man dama fi représenté étudiants yi nga xamante ni ñëpp tey daje nañ doyen tey dem nañ foofu ak le président de avec son euh, secrétaire je ne sais waaw daje nañoo ñoom waxtaan nañ nee na nag moom moom il est catégorique du ñu jox carte tey du ñu ko jox ëllëg parce que ñun reconnaître ñu te alors ñu nangoo nañ ñu nangu ñoo inscrire ñu bindu bindu ci kanam ñëpp joxe suñu xaalis ah, bañ boole ñu si euh, liste TD ñii bokk ñii bokkaguñ ñu bëgg ne dañuy rejeté.